wax téléphone. ah bon saa yu avènement dem naa jaale ji ko këram barki démb on deux amis communs qui sont décédés Mansour Kama ak euh, euh, notre ami de euh, de l'ONU Habitat à Ngaye Mexe woo naa ko jaale ko. bi ma bi bi tantam gaañoo aussi dem naa kër ga jaale. ok voilà sama mag la sama xarit su ma ko soxlaa dama koy woo téléphone ma dem ko li nga ma xam ne moom la Sénégal yëpp seq ak seen morom ah. ay jaale ah oui maag moom non ah. bi Khalifa génnee prison ba léegi maag maintenant dernière bi moom sérieusement jéem moo ko seet parce que dafa ñu woon tournée politique parcelle donc ñoom seen mouvance la man bokkuma ci daw ma ci mais ne man maa jëloon initiative pour dem seeti ko su ma la su ma su ma amul ak moom relation du ma ko woo téléphone di wax ak moom sama xarit la su ma ko soxlaa sama mag la loolu du dañ xalifa le grand maire loolu du dañ su ma ko soxlaa dama koy woo dem seeti ko noonu il est humain nit ku baax la voilà d'accord mais man de argument bi nga ma jox vraiment ci